investir le président de la République Macky Sall pourquoi président Macky Sall président Macky Sall moo andi ndox ci réew mi pourquoi le président Macky moo yokk université ci réew mi pourquoi le président Macky moo defal yoon yu baax yi ci réew mi pourquoi le président Macky moo fi andi bourse familiale yi pourquoi le président Macky Sall moo fi andi terre bii nga xam ne mu ngi seen web pourquoi le président Macky Sall moo fi andi BRT pourquoi le président Macky Sall moo fi andi li nga xam ne mooy Abdoulaye Wade waa Tamba gërëm nañ leen pourquoi le président Macky te yàlla dogal na ci itam à la tête de ci la xalaat ne Afrique mun na bokk ci g ci moom la ñu xalaatee ne tey néew di doole mun na toog di faju hôpital weer dee mu ci am juróomi junni tey mu yokk ko ñaari junni donc président Macky Sall képp ku ko gis tey xam ne bu fi nekkutoon réew mi dina am lu mu demee ci safaaga waaye nag taxaw na pour li nga xamante ne mooy jàmm ci biir réew mi gën a sax taxaw na li nga xam ne ñuy dëgëral institution mu gën a sax moo tax ñun ndaw ñii jóge fu nekk ñu ne du ñu bàyyi benn xale buy jàng politique benn populisme wala kenn koo xam ne wala kenn koo xam ne wala kenn benn xale di la woo ci procès au ay étudiants di laaj ñu fayal leen seen loyer au moment où Ziguinchor gis nañu na mu mel ñuy prôner violence dans ce ñun cette jeunesse. nous demandons au peuple sénégalais ñu gën a yeewu gën a xam ne que Sénégal c' avec le président Macky Sall jàmm réew mi c' est avec le président Macky Sall l' émergence de ce pays c' est avec le président Macky Sall. man li may bëgg mooy que moom yëpp bëgg-bëgg la am yéene ne man kat buñ ma falee damay def ñaaru mandat donc ñoom conseil constitutionnel dañuy seet premier exemple bi nga xam ne nii mooy exemple Fata mooy bi mu buggee dama amoon na possibilité amoon na 7 ans à 5 ans conseil constitutionnel ne ko mandat bi yow moo moo ko conseil constitutionnel moo ko wane mandat boobu noo ko wàññi donc conseil constitutionnel boobu wax ko ne mandat boobu mënu ko wàññi parce que bu ko waxee rek ne mënoo nekk candidat dañuy jàpp ne mënul nekk candidat mais parce que bu ko waxee ne mën nga nekk candidat dañuy jàpp ne mën na nekk candidat mais ñun li ma waxaat rek ñun parti lañ pour choisir un candidat suñu ay militants mu nekk le président Macky Sall ñu bëgg mu nekk suñu candidat ci élection yi. est ce que li ngeen def tey yëgoo nga ci des jeunes nous sommes des cadres nous sommes pratiquement des des militants euh, am nañ suñu droit ñu wax suñu bëgg-bëgg moom nag am na moo parce que moom aussi nit ki mënoo ko di gis rek te bëggul demee boo xam ne moom bëggul def wala warul def mu ne man bëgguma def du boobaa dañuy seet keneen rek mais ñun dañoo bëgg moom mu nekk suñu cadre ñu bëgg-bëgg boobu la ñu am war nañu dajaloo et aussi duñ ko bëggul woon Macky Sall du bëggul woon suñu dajaloo bi du dajaloo rek may nañu possibilité ñu mais néew c'est pas parce que dañoo bëggul li am ñun ñëpp ñoo bokk benn benn benn bëgg-bëgg mooy investir le président Macky Sall yëg-yëg yi nag moo ute rek su nekk ni muy yëg ak ñu manifester yëg-yëgam moo waral yenn tiraillement yi rek mais sincèrement waa étudiants yeeg les jeunes cadres rek les cadres rek ñëpp ñoo xam ne ay militants APR lañ benn la ñu doon pour le président Macky Sall nekkoon Abdoulaye Wade lu ñu mel ñu gis ko ne yéen a koy ruumandaat ndax yéen a ngi xalaat conséquences ak lan la mën a juux ci Sénégal non amul benn conséquence amul conséquence gis nga lu yoon même Ablaye Wade ba mu fi nekkee mu ngi noonu da ba mu ñëwee lu loi ba mu ko mayee da koo def te amul woon benn problème. pourtant président Macky Sall bokkoon na ci ñu doon xeex lu nu mel. waaw déggoo ma ne la ba léegi suñu président Macky Sall waxagul instant yi ñun ñooy wax suñu propre responsabilité la ñun ñoo ko soxla ñun ñoo bëgg pour mu ñëwaat poser candidature am parce que constitution may na ko cinq euh, yeneen cinq ans. comprendre nga te doyoo lu ñu nag wax dëgg yàlla instant bii nii surtout réew mi dañ koo soxla te jàmm moom ci Macky Sall la ba fi nekkee ba léegi bam ba fi nekkee ba léegi courant bi doy na ndox yi doy na dëgg yàlla kut kabaj bi ngeen doom dégg xoolal terre bi réalisation yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla amul benn président bu ko fi defoon boobu ba léegi. dund gi dund gi tamit mu ci. parce que déjà xanaa gis xanaa xanaa yëgoo wàññi yëpp wàññi na dund bi wàññi location bi wàññi lépp instant yii nii si si si jaaykat yeeg kii ci la ci la dépendre ñu ngi si ñu ngi ci ñu ngi ci discussion yi mais fi mu toll nii moom wax dëgg fa yàlla suñu président Macky Sall lañ bëgg pour mu ñëw defaat deuxième quinquennat waaw ñu gis que ni bu ñu fi ñëwee gis nañ fi désordre bu fi am ndax mën nga ñu dikkalaat ci situation boobu. non gisuma fi désordre de wax dëgg yàlla nit ñi ànd ak seen seen kii xadar rek dañoo kontaan rek mais fii moom gisuma fi benn désordre wax dëgg yàlla. bëgg a jëm fu ne ñoo ngi ci ginnaawam waaw. pare nañu de pare nañu moom ndax li mu defal jigéen ñi kenn mësu ko fee def li mu defal jigéen ñi kenn mësu ko fee def jàppale na jigéen ñi yëg na jigéen ñi yërëm na jigéen ñi. waaw maa ngi lay fay maa ngi tudd Néné Galle dëkk dëkk maa ngi xoox ànd ak ki ñu naan Nogoy Diop ak Mourtala ñun amuñu beneen président bu dul mag yi suñu réew mii duñ ko jox kenn mu ñu koy yàqal Macky la ñu wóolu moo fi nekk li Macky def ci réew mii gisuma ko ko fi mën a def duñu jox nag ay ay woyoo bandi ak ay pédophile ñii caxat caxate gone yi ci sunu réew mi loolu duñ ko def duñ ko mas a def ci àdduna yàlla buñ ko def Macky ñu ngi koy ñaanal yàlla mandaawam bi mu toogaat fi ci barke Mohamed te beneen mandat it bu ko bëggee da koy am dix mandat bëgg nañ Macky def ko ci réew mi ma ne duñu forcé xam nga lan moo yàq sénégalais xam nga lu ñuy wax dañuy dindi nit ba pare ñu ne bu ñu yogoon ñu ba fi kon nag nañ fi bàyyi Macky Sall tooñul kenn deful kenn dara gisuñu ku ko gën ku ko tane laa wax gisuñu ku ko gën fii ci Sénégal Macky daal moom la ñu bëgg mu toog géréel ñu sunu Sénégal bii. sama teewaay fii moo di rek euh, jàppale rek suñu président Macky Sall ndax wax dëgg neex yàlla Macky Sall fu mu woote dinañu ko wuyu ndax mooy borom jàmm bëgg jàmm. te bëgg sunu njaboot te nit moom jàmm moom bu jiitoo ci léppam rek kooku moom ca kaw ca kanam ndax Macky sàll bu dul dara nañu xool ba muy toog ni dëkk bi meloon ak léegi li mu fi defar bu ñu tegee projet yi nga xam ne moom la jotoo liggéey fii yépp rek macha allah keneen ku fi ñëw doo ko liggéey loo fiy def lan nga fiy def Macky defar na lépp ñun Macky lañu xam. mooy borom jàmm ji magi lañu am ndax moo am yërmaane si ñun am yërmaane si sunuy njaboot ñun xamuñu keneen ndax kat balaa ñuy fal nañu xam ka fal ñun ñun xamaguñu ki ñuy fal nu mu mel kon suñu Macky Sall mii moom lañu ñu xam moom la ñuy jàpp duñ ci góobee gar ko nag ñoo Macky ba jusqu'à la jàmm la bëgg te ku si mel ni man damaa jaboot xam nga boo jabootee jàmm ngay bëgg ndax fu ñu yuuxoo dafa reyante baa nga foog loolu nga daw Macky Sall nag xeexul xuloowul am na fulla am na fayda képp kuy jaboot te bëgg baax war nga koo bëgg man mii di wax ak yow day sama borom kër dafa dee ma jaboot jur bay bëgg a dee yor seeni morom yor ay xale yu góor balaa la 24 Macky Sall la jox ñu suñu pension te dañu daan toog ñetti weer ñeenti weer duñu jot suñu pension ba ma fi toogee ba léegi seetul ko am pension seetul ko am ne leneen dañoo jox sax bourse dooleel ñu ci bëggul jaboot xiif bëggul jaboot xiif bu fekkoon ne fu mu yuuxoo rek ñu defe suñuy doom dee na duñu ko topp Macky nag dañoo ñaan yàlla mu am fi téeméeri waxuma la ñett de waaye téeméeri mandat lañ bëgg a Macky am ko fi ndax dañoo gisul ku ko mën a remplacer fii maa law jox loolu